te li tax mu bind ko yépp mooy ngir mu jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yacbuduni moom buur boobu nag subhaanahu wa taala ñu ngi koy ñaan mu jullil ñu ci sangu-sang yi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di seede ne ak nubuwa jotali na ko andi ko ci ñun yàlla may nañu nag it ñu gëm ko te daal di koy topp julli boobu nag yàlla na rogalaan ci njabootam ak i saxaabaam ak képp koo xamee ne topp na yoonu njub ba keroog ñu tasante ak suñu borom subhaanahu wa taala mbokk yi yéen a ngi teewlu waxtaanu koor kom ni ngeen ànde woon ak ñun daaw ci seen euh, canal youtube euh, doomu Tayba ranit insha allahu taala noonu lañ ko bëgg ànd ak yéen di ñaan buur bi subhaanahu wa taala koor gi ñu dëgmal euh, yàlla nañ ko fekkee ak jàmm commencé ko ci bismillahi arrahmani arrahim jeexal ko tam ci alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi xam naa doo xaar ba koor ñëw ngay wax kan moo mën a woor moo tax doomu Tayba TV ànd ak al ustaaz Abdoulaye Saïd Gueye ci seen waxtaanu koor tey jii di numéro un ñuy wax kan moo mën a woor comme saa ku nekk dugg ci biir fameem xool kan moo ci mën a woor ak kan moo ci mënta woor mu jëfe nag li nga xamee ne moom la ko suñ borom subhaanahu wa taala daal di digal bi njëkk mooy ab jullit mooy woor ki nekkul jullit moo xam dafa nekk yéeféer wala dafa nekk ci geneen diine judul diine lislaam kooku woor waru ko ñaareel bi mooy doomi aadama bi su fekkee ne dafa dugg tey ci diine lislaam tombeel bëccëgu weeru koor la bis boobu nag ci sansi bi mu duggee rek dafay daal di jàpp nag sa suba sàkk euh, ba keroog koor gi di jeex mu continuer nag woor ndax léegi ab jullit la koor yi nga xamee ne fekk ko ci diine lislaam yooyu du ko fay te du ko woor loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, wax kon ñaareel bi ginnaaw bi nit ki nekkee jullit mooy faw dafay nekk nit ku am xel ki nga xamee ne dafa ñàkk xel moo xam dafa mage ba naax moo tax dafa wala sax dafa tàqalikoo ak sagoom ñi woor waru leen ñoom it duñu fay bis yi nga xamee ne dañ cee tàqalikoo ak seen xel ñetteel bi mooy koo xamee ne dafa majeur kon gone woor waru ko ma ne gone woor waru ko waaye lislaam nag sopp na ci kii di tuteuram muy kilifaam mu digal ko mu woor ndax yool bi moom lañ koy fay te loolu tam dafay nekk entraînement boo xamee ni dana koy entraîner ba keroog su majeure woor daf koy daal di yomb bari na mag ñoo xamee ne duñu woor ñàkkoon koo def bi nekkee xale loolu moom moo ko waral ñeenteel bi mooy nit ki tam dafay nekk ku attan koor gi koo xamee ne dafa magee ba mënta woor ndax lompañ kooku koor da koy wàcc ki nga xamee itam dafa feebar te feebaram bi docteur yi yaakaaruñ ne dina ci wér kooku itam euh, koor daf koy daal di wàcc ñoom ñaar ñii nag euh, bis bu jot dañuy lele benn miskin ba keroog koor gi di jeex walla bu koor gi commencé rek ñu génnee njëgu fanweeri miskin seen ndog ñu daal koy euh, jox bu dee fii ci Europe la nee naa 5 euro la par bis mu nekk 150 euro fanweeri fan yi bu dee ca Sénégal nag ñaari téeméer wala téeméer ak juróom fukk wala téeméer dafay daal di doy ndax loolu mën na palaatub ceeb moom la buur di wax ci alquran naan wa ala lazina yutiquunahu fidyatun taamu miskin kon nag ki nga xamee ni dafa màgget ba mënta woor ak ki feebar te yaakaaru ne dina wér ci feebar bi ñoom dañuy lelee miskin bis bu jot waaye ki nga xamee ne nag feebaram bi yaakaar nañ ne dina ci wér dafay compter bisi koor gi niñ toll bis bu wéree mu daal di koy fay nànk-nànk naka noonu jigéen ji nga xamee ne dafa wan lor wala jigéen ji nàmpal ñoom it su fekkee ne su wooree moom dafay sonn te xale bi tam dafay sonn mooy kiy nàmpal wala kiy ëmb su boobaa koor dafay xaraam ci moom kooku warta woor su koor gi jeexee fekk mu daldi dellu ci sagoom mu daldi woor naka noonu ki nga xamee ni dafa wan lor wala dafay nàmpal su fekkee ne koor gi day diis ci moom waaye du lor xale bi su boobaa nag moom dañuy sib ci moom mu daldi woor ki nga xamee ne nag moom mu ngi wan lor wala mu ngi nàmpal su wooree daf koy daal di teg du ko teg coono te du ko tegit doomam coono su boobaa kooku koor dafay war ci moom kon daal kii nàmpal wala mu wann lor su yëgee ne moom bu wooree dina teg coono boppam teg ko doomam su boobaa koor dafay xaraam ci moom du woor day bàyyi ba koor gi jeex fekk mu mën ko mu fay su fekkee ne moom lay teg coono waaye du teg coono xale bi dañuy sib ci moom mu woor su ko neexee mën naa dog su ko neexee mën naa woor waaye bu dee gi du ko teg coono du teg coo doom ji coono su boobaa nag dafay war ci moom mu daal di woor naka noonu kii tukki mooy juróomeel bi ki nga xamee dafay tukki moom it moom it euh, waru ko ma ne kii tukki tam waru ko su ko neexee mën naa dog su wooree nag moom moo gën moom it bu fekkee ne buy tukki day am coono ba yegg ci lool su boobaa nag moom dafay xaraam ci moom mu woor dafay dagg bis bu koor gi jeexee mu daldi fay su fekkee ne koor gi da koy teg coono waaye yeggut ci lool su boobaa dañuy sibbit ci moom mu daldi woor su dee nag koor gi du ko teg coono tukki bi mi tukki bu ci wooree du ko teg coono li gën moom mooy mu daldi woor juróom benneel bi mooy ki woor dafa war a nekk ku set juróom benneelu ponk bi moom jigéen rek moom moo ko daldi moom mooy dafay set ci deretu mbërëg set ci dereti gisin su boobaa mu daldi mën a aw woor loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni alaysa iza xaadat lam tusalli wa lam mu ne xanaa jigéen day su fekkee ne dafa gis mbaax wala mu gis deret gisin mu ne du woor du julli woor gi nag da koy fay waaye julli moom du ko fay kon daal juróom benn la gor kilifa gu nekk war a xool ci njabootam suñu dajee woor bu fekkee ne dajewuñ nag ngant dafay daal di am jullit mooy woor moo ci njëkk yéeféer ak ku nekk ci beneen diine woor waru ko ku am xel mooy woor ku tàqali ko ak xelam wala kuy naax woor waru ko il faut nga nekk majeur xale woor waru ko waaye sopp nañ ci kilifaam mu digal ko mu woor il faut nit ki day nekk ku am kàttan ci koor gi màgget bu lompañ woor waru ko ki feebar te yaakaarul wér kooku woor waru ko waaye dañuy leyle ki nga xamee nag dafa feebar waaye feebar bi yaakaar na ci wér kooku dafay daal di compter bis yi ni ñu toll bu wéree mu daal di koy fay naka noonu ki ëmb ak ki nàmpal ñoom it woor waru leen bu fekkee daf leen di teg coono dañuy compter bis yi nu mu toll buñ daal di féexee ñu daal di woor kii tukki itam woor waru ko su fekkee day diis ci moom. su mu nee boolee tukki bi ak woor te du ko andil coono moo gën juróom benneel bi mooy jigéen moo ko moom faw dafay set ci dereti mbërëg ak dereti gisin pour mën a woor yàlla na yàlla def si ñun dégg ak topp def ko ci yéen yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñu daal di koy topp mu wan ñu ay caaxaan bañ xam ne li caaxaan la ñu wan ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu te bu leen fàttee ngeen abonné pour mën ñoo topp